amis yi di internet yi ba Sénégal ak lundi 6 novembre 2023 dalee nag jàmm li gën a fës ci xibaar yi nag dañ koy mi yëkkati ay kàddu nag wax ak nag li nga xam moo di opposition bu sénégalais bi ñoom nag li ñu xamal daal mooy ñu ci bare bare nag nekk ñooy opposition ba tax na moom mi di Dame wax na parrainage bi instant bi kenn rek moom moo ko téye muy ki nga xam moo di président Ousmane Sonko moom yi ndax nguur gi sax ñoom bu deful woon ay njuñ daañ nag ñoom ñoom leen daal kenn rek du ci am parrainage du ko ci matal ndax xam seen Sénégal yi ñëpp rek instant bi bu ñu dem rek di parrainer rek dañ leen jox xaalis te ñoom nguur kese fi am xaalis boo xam si nag dañ koy joxe pour rek ñu leen di man di parrainager ki nga xam moo di dàmboo ca moo yëkkati kàddu yooyu wax la nag opposition Sénégal bu amul ful rek ñu sëkkatal Macky Sall wax ko nag mu organiser ay élection yi jaar yoon nag kon nag du ko ndax Abdoulaye Wade noonu la ko opposition defoon ba tax mu def ay élection yi nag Macky Sall nag loolu la war a def Dame Mbodj moo yëkkati kàddu